internet yu ANTV, TV di len dalal ci suñu émission l'invité tay nak ñu ci and ak Lassana di directeur général bu office national de l'assainissement du Sénégal waxtaan ci lu dox ci digganteem mak rédaction bu NTV ñël le projet de lancement de la dépollution du baie de A. Lassana directeur général

donc 2017 vient ensemble donc man ma référence en janvier 2018 euh, te ñu commencé l'idée. septembre 2018 nous, jël projet bi taxaw ci pour mu sortir. un euh, financement complémentaire bi euh, coopération hollandaise mais Sénégal douane woon bor mi bi may commencé nag jàpp si jàpp si septembre ren deux ans nous mën euh, signé Eh, defe naa eh, suñu doxal lan moo ko soppi xëy na loolu moo tax wóoruma mooy dañuy commencé lépp li nga xamee ne àq dañu amee ko askan wi ci projet bi ñu ñu respecté ko mooy fañee pense ni boole ci waxtaan nag askan wi bés bu nekk waxtaan bu bëri bëri def nañ ko pour expliquer rek enjeu projet bi defe naa ba dem ba pro askan wi jël projet bi def ko yëfu boppam defe loolu si li tax. Eh,

on va prendre en priorité ni jël ñi ñuy gën jël mooy ñu dëkk ci gox bi bu dee am na ñu mën-mënu def liggéey bi ci leneen di sax voilà defe naa daal loolu laa amoon ci tënk ci ci projet bi euh, lan la ci mën a am lan ci mën a gis waaw projet bi ñu ngi tourné autour de soixante dix milliards francs CFA mën na yokk partenaires yi mooy agence française développement ñoom ñu ngi ci projet bi depuis fukki at loolu musul am kiy jàpp projet fukki at juróomi at bu sotti war a dañuy bàyyi dem Euh, am nañu aussi union européenne union européenne du bor don dañu may Sénégal am na coopération néerlandaise ñoom it don la dañu may Sénégal am na Chine aussi euh, ci sama xam-xam guléet la ñuy am partenaire Europe ak Chine toog liggéey ci benn projet loolu li ko waral mooy kóolute bi ñu am ci son excellence du président Macky Sall kóolute bi ñu ci Sénégal moo tax ñoom it ñu tey di ñëw di ko suñu xaalis réew bi defe loolu moo tax lii yëpp am bon euh, sama xel bu gàtt. Euh, man bi ma nommé ba léegi dëgg la am nañu à peu près juróomi at li may waxtaan ak ñoom régulièrement ni du population bi rek am na aussi waxtaan yu bëri ñoom ak secteur privé euh, defe naa je pense qu'ils se sont approprié le projet ànd hmm? sax am nañu ba defee association bu ñuy wax CRAB bi nga xam ne liggéey mooy saytu waa saytu projet bi defe naa daal sama xel mën na rafet ci ci projet bi non, le temps que va durer le projet, il y aura des emplois, parce qu'il y a le temps que va durer le projet, il y aura des emplois. Mais je pense ça va plus loin que ça. Vous un peu on peut développer des activités touristiques sur la baie qui vont permettre d'employer des jeunes. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le projet. Mais le temps du projet, il y aura des emplois, bien sûr. Par li bébés. difficulté du mooy euh, industriel rejeté directement déchets yi projet pour simplifier dañuy def li ñuy wax intercepteur tuyau bu mag la buy tomb géej gi yëpp ba an beneen mbaaw boo eggee foofu tuyau boobu nag la industriel yi bu ñu defee seen ndox yu salte ci biir dañ koy def mais balaa ñu koy def ci biir dañ koy pré-traité ci ñoom ba pare ba mu set def ko ci biir bu demee ci biir nag tuyau boobu day jël ndox bi dem ba mbaaw yóbbu ko ci biir géej ñu traité ko ça veut dire que amul ndox buy salte buy ñëw directement ci géej bi.

parce que dégrilleur bi ñu ko tegee fekk nawet bi ñëw nawet bi bu ñëwee dafay collé saleté day collé ci dégrilleur bi inondé ci ginnaaw dafa ne moom dañ dama ragaloon que day inondé ba plateforme terre bi mais yàlla def na si sutura taw na ñun jëloon nañu xale yu dëkk foofu ñu teg leen fa te yàlla def na ndox bi jàll na inondation amul mais dégrilleur bi je pense que Hmm, c'est une bonne initiative citoyenne même pour des après des naa beneen pour nous dire que mais c'est une bonne initiative citoyenne Dès les amoon étude on amul woon amul woon amul woon dañ mais je pense ça a donné des résultats loolu moo ëpp donc donc dafay des. Euh, non les grilles de drame sens son esprit parce que projet bi dañ koy tëral euh, ni assécher canal bi ça veut dire qu'on ndox salter d'autres choses Le canal bi dañ koy tëj dañ koy assécher ndox dootu salte dootu fa jaar

la bokk mënoo defar bëgg def embêté toj neen mais ñu ngi liggéey ah, ñun APIX pour seen ak ñun fajee loolu APIX sa CONAS ñu ngi liggéey ensemble pour seen ak ñun bi mooy taxawu askan bi jeexintan bi mooy améliorer condition de vie population yi def noonu laa ko tuddee man loo xam ne ñëpp a ko soxla ci fépp fu ñu dëkk di gërëm di sat di la remercier d'abord yow mi ma tax opportunité ma wax ak Mbaaw di wax waa Mbaaw waa Thiaroye yi que yenn saa yi ñu xëccoo mais defe naa lépp lu ñu wut ñoo ko bokk et lépp lu ñu wut mooy man de personnellement mooy ñu jàpp ci liggéey projet bi en tout et ñu améliorer conditions de vie des